on n'acceptera pas mhm. que gendarme yi mën a yombal saa yu Macky Sall bëggee def benn forfait à travers le général Fall mu convoqué mu woo ñaari colonel ñu wàcc ak gendarme yi jàppale ko mu def li mu bëgg a def dem ñenn ñu mën a ñenn ñu par principe suñu warul voté duñu voté soo nee du ma voté te leerul mu wóor ne leerul pourquoi ngay voté il faut pas voter. alors Georges ne le fais pas pour toi même si même su fekkoon bu ñu voté yow yaa war a xalu il faut refuser ça parce que l'éthique ça commence par ça li nga mën a jox sa bopp la nga ci mën a renoncer. alors Georges gis nañu ñoom tey les les les députés de Yewwi def nañu point de presse propos yu mu fa wax nii c'est des propos. Euh, jugé par les autres parce que bu ñu demee bay wax ni su fekkee ni gendarme dañu fa war a ñëwaat nañu indi li nga xam ne mooy seen arme nag boobaa euh, dinañ waa dañ jël arme ñu bàyyi fak suñu bakkan est-ce qu'on dugg na ci gouffre boo xamante ne fii ak 2024 la série euh, est assise sur les je pense pas je crois que euh, ñoom xam nañ ne que ne gendarme yi foofu leen dëkk <laughs> si biir assemblée nationale mhm. ñoom am nañ sax seen chambre fu ñuy fanaan foofu parce que ñoom ñooy assurer la sécurité. mais dañu woon dugg au centre de l'hémicycle duñ la nationale fa la ñuy fanaan sax ñoom alors. Mamour Diarra ñu ci biir. waaw d'accord Mamour Diarra parce que tamit seen yi fa gis keroog fa. mais pour revenir je crois que là il faut appeler les uns et les autres à la raison. Mm-hmm. que ce soit de la majorité que ce soit au niveau de l'opposition. l'autre jour je crois que euh, il y a eu trop en fait il y a eu trop de confusion. la première mooy lan on a perdu l'opposition a perdu trop de temps avec cette histoire de cumul de démission mhm. alors que en principe il s'agit même pas de démission il s'agit d'une suspension de mandat ah c'est une suspension de mandat parce qu'il y a une nouvelle loi a une qui dit que le député buy bu defee cumul il ne démissionne plus il suspend son mandat jox ko son, son, son, son suppléant je comprends pas ça veut dire maintenant si par exemple Abdoulaye Diallo bu suspendé son mandat. dans trois mois mu démissionné wala Macky Sall dàq ko day ñëwaat suppléant bi demaat toogaat defaat lu mu demaat toog. ah bon kon bu démissionné du gouvernement mun na ñoo reprendre. c'est pourquoi on a c'est pourquoi on appelle ça suspension ce n'est plus une démission. Et depuis quand euh, mais ça a été changé. bi ñuy euh, def kii bi mais euh, ça ça ça ça ça a été ça ça c'est-à-dire c'est passé sous silence. mais la loi était votée. d'ailleurs à l'époque moi j'étais demoon naa si assisté à cette plénière là il a beaucoup de députés yoo xam ne ils étaient émus. wala sax dañu déconné mais loolu. da ngay may da ngay da ngay gàcceel sax si suppléant sinon da ngay wàññi. Euh, da ngay wàññi euh, daraja daraja suppléant parce que suppléant bi jógee këram sañse jënd ay yéreem dem def prêt bancaire am ñëw installé. def fa trois mois suppléant bi ñëw man maay suppléant bi. def loolu yëpp Pape Sané mooy mooy. Euh, titulaire bi jékki-jékki ne ah dàq nañ ma Georges joxaat ma sama poste. sama xam nga loolu loolu rafetul. donc ça c' est des arguments yoo xam ne dañ leen dañ ko tegoon si taal bi l' jour malheureusement euh, la majorité mécanique qui était là ba mhm. n'a pas voulu comprendre dañ ne waaye c' comme ça parce mm -hmm. que aussi euh, bu ñuy tànn ne kii mooy suppléant bi kii kii mooy titulaire bi. Mhm. bu ñu defee rek war na am différence ñoom. mais pour yow ban posture la pour euh, opposition waroon am. léegi ban posture léegi ban bon ça c'était une précision que je voulais faire. par rapport à la démission maintenant. pour la démission de ce des des, maanaam ñoo xam ne c'est les membres du gouvernement. Mm-hmm. ak toute autre personne qui occupe une fonction publique non élective. non élective mooy loo xam ne askan wi joxu ko mais dañ la ko fal comme nga nekk directeur directeur général. Mm-hmm. nga nekk ministre. wala nga mais am na poste yoo xam ne sax duñu ay kii parce que xam nga ku ñu may nga cumuler foofu si assemblée mooy les professeurs d'université boo nekkee professeur d'université moom mën nga continuer jàngale université nekk député te bu boobaa sax am na fu mu dem da ngay tànn ban salaire lañ lay fay bu fekkee ne yow yaakaar nga ne salaire bu lay fay université moo ëpp bu ñu lay fay assemblée mën nga président en même temps que je garde mon salaire à l'université yaa ngi dégg loolu yëpp loi bi def ko prévoir alors donc donc maintenant keroog vous avez perdu du temps on a vous temps dans cette truc euh, parce que quand même euh, man de dama ne euh, jarul woon sax euh, un truc de, de une question préjudicielle boo xam ne ça va prendre une heure de temps bu ñu leen nee ñii ñoom nee nañu du ñu démissionner en fait du ñu déposer seen suspension de, de de mandat mais dañuy continuer parce que on considère qu'ils ne sont pas encore installés là aussi man nee naa am nañ dëgg parce que ku ñu installé balaa balaa nga nee na am na fa mm-hmm. yow mën a koo démissionner bu booy démissionné kay booy démissionné kay da nga koy jox benn directeur. Wade laa fait avant. d' accord Wade laa fait avant tout le monde a accepté. waaw may ma rek donc moom mënatul nekk lay. le même jour mais il faut pas oublier que Ablaye Wade ba mu quitté ba mu quitté non non non chaque élection législative il est député day démissionné bàyyi suppléant daal di ñëw il a. mais mais léegi dañ may confirmer rek. comme que moom démissionné na avant ñu commencé. est ce que Ablaye Wade. kenn mënatul wax kenn mënul démissionné avant ñu commencé. loolu nekkatul argument non mais c' est un choix. dès l' instant qu' on ah, dit que ah c' est un choix. oui oui attendez mais ah, attendez honorable dès l' instant que la loi. mais bu ma nee lee mënul nekk parce que nekk na le jour. waaw waaw dès l' instant on dit que parce que il faut d'abord pouvoir balaa ngay démissionner nga am ki ngay démission bi. il y avait pas encore de président celui qui était là il était c'était juste koo xam ne c'était pour président de la séance parce que réunion boo gis fam na koo xam ne mooy joxe la parole alors donc donc voilà justement j'allais en venir donc c'est c'est pour dire que il piétine c'est pour c'est pour ma rek c'est pour dire que loolu jarul woon jarul véritablement mu ñu koy yàggal parce que loi parce que dès l'instant que loi bi ne à partir de l'installation vous avez huit jours pour déterminer ça veut dire que bu ñu huit jours bi jeex wax bi jeex na ça veut dire que entre élection installation huit jours yi. loo si mën a def nga def ko. la loi n'a pas dit ça. c'est ah. dommage fu ñu ko bind loolu kenn bindu ko fenn. kenn bindu ko fenn. loolu la vous êtes en train de définir l'entrée en fonction. comme ni ñu ko bëgg a déggee mais l'entrée en fonction mooy kañ. ah mooy kañ. Mmh. après l'installation non non non un député. Eh. bu ñu fal. waaw bu ñu la falee nekk nga député. waaw bu la falee bu la neexee bu la neexee bu bu ñuy installé bu fa jaar est que député yi fa jaarul ba ñuy installé. est-ce que maintenant je pose une question. la pose une question est que yow bu cour constitutionnel bu euh, conseil constitutionnel proclamer résultat mën nga déposer projet loi proposition de loi. mais bu session ubbee ma déposé ko. <laughs> c'est-à-dire loolu la quoi man on oh, j'étais convoqué j'étais pas convoqué par Macky Sall pour être sincère j'étais convoqué par Macky Sall xam nga loolu xam nga loolu la ñuy wax xam nga loolu la ñuy wax ne balaa ngay ne naam ne fa donc il faut pas que gars yi di jël ay mots yoo xam ne amu fi ñu bëgg ko dugal ci bopp Sénégalais yëpp ne leen entrer en fonction mooy lii xam nga lii lii lii moo leen tax nag on a perdu trop de temps waaw may ma rek may ma rek may ma rek non après waaw après vous aurez le temps de répondre donc loolu jarul woon jarul woon perte jarul woon perte temps parce que quoi qu'il en soit même bu fekkoon ne sax ñooñu dañu nangu woon sax seen principe ne dañuy dañuy génn saal bi seen suppléants yi il va falloir donc nag nga leen di jëlee ça veut dire que yéen vous reporter encore la séance pour un autre jour pour seen suppléants yi ñëw. na dëgg am rek. waaw <laughs> mais mais dëgg boobu nag dëgg boobu dëgg boobu nag na fekk aussi ñu bind ko deuxièmement mhm. Mhm. donc sur ce côté là. fu ñu fayiree premièrement wax nga deuxièmement voilà deuxièmement fu ñoo foo xam ne nag. moom foofu laa ànd ak ñoom mooy bu ñu nee le mode de scrutin cest à naka la ñuy voté loolu moom jar naa wax boobu moom c'est la majorité qui a tort parce que tamit euh, à la veille scrutin comme euh, celui de de l'élection d'un président de l'Assemblée nationale ñoom c'est vrai que xamuñu woon parce que la majorité étriquée maanaam rien tout pouvait arriver à l'Assemblée le lundi lundi dernier c'est-à-dire majorité majorité mënoon na jël le le perchoir tout comme l'opposition mënoon na ko jël. Mhm. et moo tax ils on pris d'ailleurs les devants jël dem euh, def seen conclave fële ca Saly pendant deux jours ne Euh, député de la majorité signé leen fii chaque ann na signé sur l'honneur que demain bu ñu demee assemblée nationale <coughs> waaw bu ñu bu ñu bu ñu demee bu ñu demee mhm. nañu ku nekk si ñun na voté nit koo xam ne moom la président Macky Sall choisir loolu la ñu wax moo taxoon ñu defal leen seen seen ay procuration parce que se disait que peut-être euh, man am entre temps ki kii fële loolu donc loolu loolu je crois que c'était une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale au Sénégal kay ay députés ñëw avec autant de procuration et comme il l'a dit tout à l'heure la procuration ben c'est pas un papier boo xam ne da c'est pas une licence ou bien une carte d'identité boo xam ne mën na ko brandir à tout va y a des raisons et y a des motifs yoo xam ne moom moo la tax Assemblée nationale valider une, pro, une une procuration pour te permettre de voter pour tel ou tel autre mm-hmm. donc sur ce côté-là la majorité euh, n'avait pas le droit avec eux et quand effectivement Guy Marius Sagna et les autres là sont dit que ñii du ñu kii far ba ngoom du voter parce que procuration bi vote procuration vote na le premier jour mais deuxième jour bu vote wul deuxième jour ma bëggoon ñëw moom sax mooy déjà ci vote yooyu la parce que dañoo gis ngeen taxaw ne euh, yéen du ngeen vote gis nañ président su assemblée bi vote wul leen mais ci côté euh, vice président yeeg questeur yeeg euh, secrétaire élu yi da ngeen a dem jëli ci poste yi dem dem vote ji loolu lan moo koy motiver Cheikh Aliou Bey bon pour rétablir la vérité waxuñu ñun vote wuñu je pense que amul benn député bu génn ñun oui voilà cest à wax nit ñi lu xew. vous n'avez pas boycotté. non on est venu pour voter. moi je non on n'a on n'a pas boycotté. et je précise ici que kenn amul benn député bu bokk ci opposition bu génn ma damay boycotté wala mu dem ñibbi wala mu dem on est gënuñu foofu on était là. mais <coughs> pourquoi voté wu leen. mais manière vous avez vu qu'est-ce qui non seulement man bi ma yëgee ci podium wax naa nañu wax ñi amul bulletin y a des gens à qui ils n'ont pas donné de bulletin sur pour nit ñi voté waa femme bi. comme que moom waaw dañ ko dañ ko digoon ne ko da nekk deuxième da doon tëb xam xam na leen quoi day tëb ay quatre yu nekk ci opposition bi dama wax benn maanaam ñoom la doon chercher ci biir liste bi leen woo les autres n'ont même même été appelés cest dire am na yu ñaaw yoo xam ne foofu il nga nekk fa pour xool ni ñuy tëbee nit ñi am na ñoo xam ne kenn woowu leen kenn woowu leen ba tey. ñi njëkk am na que parce bi ñu ko defee. le fait que ñu ñaan leen ne leen fexe leen ku nekk am bulletin xam nga lu ñu leen wax fexe leen député bu nekk ci salle bi yore bulletin candidat yëpp loolu lañ refusé parce que bu ñëpp yoree candidat yëpp bu waa benn boo ko yaakaar yoree candidat yëpp war na ma duñ dugal candidat boobu mais benn candidat benn bulletin lañ leen jox ak benn enveloppe amuñu yu may mayuñu leen choix ñoom sax wóor na ma ni bi ñu taxawee foofu di wax nañ ñu may suspension de séance ñu waxtaan pour trouver présidente bi nañu moom loolu du ko def moom mu ñuy neex mu koy naqari soit mu indi armée mais day voteloo nit ñi par la force loolu musul am Sénégal mënuñu tëggee loi yi nga xam ne ñoom ñoo defar vote nag ci dëkk bi Sénégal yëpp di voté ci jàmm ñu ñëw ba foofu nit ñi waxuñu ne li ñuy def ci xam la ñu waroon wax li ñuy def par dimanche bu saa yu ñu xëy li tax defuñu ko foofu gisuñu fa taabal gisuñu fa ay bulletins gisuñu fa ñu mën a ñëw jël ay bulletins dem toog fu leen neex dugal enveloppe dugal les gens devaient se poser cette question duñu xaar ba Macky Sall bëgg a forcer troisième mandat jël ay gendarme yóbbu leen ci ay bureau ñuy tànn kuy voté ak. da ngeen xalaat ne loolu mën na nekk assemblée nationale. li mu wane keroog wane na ni su ma bëggee samp benn nit dinaa ko def par la force même su ma amul majorité. il nous a montré ça en image dama bëgg nit ñi delluwaat ci image yi xool mhm. ni mu ko doxalee donc nañ préparé wu à ça beneen bi mooy sur l'histoire euh, du réglement intérieur règlement bii moom bu amee lu ci baax bëriwul bii bu amee lu ci baax bëriwul règlement intérieur parce que règlement intérieur boobu xam ne da wax ni sooy voté euh, da nga am bulletin bu weex pour wax wii ànd naa ci wala ànduma ci da nga am bulletin bu bule pour wax damaa contre da nga am bulletin bu weex rayé de bleu pour wax damaa abstention mais ñun fi ñu nekkoon nekk ñu woon ci li ñuy wax nangu lañ wala nanguwuñu. Mhm. on est contre on est pour on mettait des candidats ñu dem voté ji ku nekk gagné c'est-à-dire règlement foofu lay am amul beneen article bu ñu la génnee bu su ñu waree voté assemblée daal. voilà foofu mhm. na foofu nag laa foofu laa foofu laa foofu tamit damay waa assemblée nationale ñoo jëlul seen responsabilité. parce que euh, quand même ñëpp xamoon nañ que ne xam nga lii règle règlement bi lu muy wax nii ça c' était des cas yoo xam ne c' était vers 1960. 1960 bi nga xam ne. c' était sûr que euh, le, le le vote le vote à l' assemblée pour le président de l' assemblée c' une formalité. parce que président président président le moo moo candidat c'est Pape Sané su ngeen demee gars yi dañuy voter même bu amee quelques personnes qui votent contre la loi passe comme lettre à la poste parce que mm. ñooñu ñuy contre mm. wala ñuy voter euh, buy abstenir u mënuñu dépasser mukk ñoo xam ne pendant que la majorité a députés mm-hmm. yow nga am par exemple euh, l'opposition totale am vingt euh, ou trente mun mënul mënoo si dara donc c'était pour ça qu'on avait prévu que deux bulletins trois bulletins au maximum mais pour cette <coughs> 82 ou bien tout au plus 83 contre 80 waroon nañu xam ne par A ou B au au des cas. y aurait avoir au moins mise à jour c'est-à-dire au pire au pire des cas ñu am au moins 3. ñu avancé 3 3 3 3 3 ou bien mu ni loolu ñu opter pour les couleurs parce que situation exceptionnelle mesure exceptionnelle. d'accord c'est c'était aussi simple que ça au lieu de se passer de ça. Mhm. au lieu de se pa au lieu d'utiliser ces ces ces là ñu wut ay Yewwi Askan Wi jël leen la couleur bleue PDS jël leen la couleur Yewwi Askan Wi jël leen votre couleur vert euh, pour euh, Benno euh, jël leen seen couleur marron après pour maintenant ceux qui s'abstiennent ñu maintenir le un bulletin blanc boo xam ne kenn moomu ko et puis la vie continue le vote allait se passer normalement parce que c'est le président même bu nga uh-huh. xam ne wax na bërki démb mu yëkkati ay kàddu moom doon wax ci li nga xam ne moo xewoon Assemblée nationale ndax nee na day regretter incident ya fa xew matériel ya nga xam ne dañ ko doon yàq te leen bàyyeel mais aussi mu wax que ni moom dafa am devoir bu nga xam ne mooy fexe ba tey euh, garantir l'unité nationale et le fonctionnement régulier de nos institutions Cheikh Aliou tant que député bu assemblée nationale euh, lan ngay jàngat ci discours bi nga xam ne moom la le président def keroog te mu am ci pàcc goo xam ne daf ko jagleel la xewoon assemblée nationale. ñaawlu na ko bu baax a baax jàngat moo ciy jàngat mooy li mu doon wax yëpp ñor ko li ko ñor mooy li mu gis assemblée te xamul lu muy nuróol la preuve nee na gouvernement def nañ ci ñëw sànq. nañ ci ñëw ci kanam. ça veut dire ça veut tout dire quoi il est réveillé il pensait que dañ koy indil ay nit yi nga xamee ne bi nii wala ci biir Sénégal am na nit ñoo xam ne dañu war a nekk titulaire nangam il a tout fait li ñu defoon mooy su ma génnee liste titulaire bi xam naa ñii ñëw moom du ñu am benn poids même bu ñu amee nombre je vais passer alors que il ne savait pas que Sénégalais yi fi ñu toll nii pratiquement ñëpp bokk gëm-gëm loolu c'est un deuxième bi mooy ce qu'il est en train de dire pour man menace la def a juste menacé l'assemblée président war na mën a maandu ci pouvoir boo xamee ne bi nii day day arrêté pouvoir am parce que pour man pouvoir exécutif la ak pouvoir législatif. dafa ak waru ci mën a maanaam waaw maanaam bu fekkee am na dayo bi mu war a am war na rus di ci wax war na rus di ci wax maintenant nag. comme dafa contourner c'est vrai que moom moo war a protéger les institutions. Mm-hmm. dafa def contournement mais su waxee loolu man dama koy ne yow yaa ak général Fall yéen yéen a créer les conditions yi tax ay gendarme dugg fa di buuxante parce que yàgg nañ fa nekk nañ fa bu ñu fa bàyyi woon fii ba cent dara du yëngu bant du damm dara du yëngu. donc gendarme fa dugg. di mhm. ba max nit ñi nañu wane waat les images ñu xool ni fa li fa yàqu-yàqu. Mhm. ni ñu doon jëlee euh, jigéen yi ak yenn góor yi di leen puus di leen ba max man ñu taxaw naan gendarme yi est-ce que boo leen eggee ba ci taabal yi doo leen taxaw que ngeen ñëw rek pour permettre gars yi ñu voter vous n'êtes pas obligé nit ñi ba ñu obligé ñoom sax di jóg di tegu ci pour dem de l'autre côté. te image yi ñu ngi fii di ñu di ñu xool il nit ñi ñu àtte ci dëgg. Mhm. Macky Sall lu fa yàqu il est le seul responsable bu fekkee am na gendarme fu dugg na fa gëm naa ni c'est pas euh, la doyenne d'âge c'est lui-même qui était au palais qui avait ah. peur et qui tremblait et qui a décidé comme il l'a fait ah ci yeneen kii jox gars décision ñu dóor ci ay nit ay bal. Mm, fukki nit ak nangam yeewu nañ ci non la fi loolu moo fi am. loolu moo fi am loolu lay def ci palais bi ba pare du ko wax. d'accord le discours ci ay ginnaaw affaire. Euh, le discours mhm. bu euh, le président Macky Sall def vendredi mu nekk discours boo xamante ne ba nit ñi wax xamee ne sax il va s'adresser à la nation ñëpp qu'est-ce va dire mhm. est discours bu mu def ak lu mu génnee ñaawlu lu amoon assemblée nationale dafay dëggal bu baax a baax li ñuy wax